asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa kër gi ak waa jotaay bi yëpp waaye di jiital ci nuyoo bi suñu bàyyi suñu xalifa suñu sëriñ sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane di ko ziyaara di ko sargal di ko ndokkeel ci bés bi waaye it bi teg ci loxoom nuyoon ñu mboolem suñu baay ji toog fii xam ne defe naa suñoo teg tànk fii ci kër gi te fekkuñu ko fi mu dalal ñu dégluñu waxtaan ak ñun di am mbégte ci gisewaat yi nuyu kilifa yi ci tool yëpp nag mënuñoo lim ñëpp waaye képp ku fi teew rek ci ay kilifa ci njabootu maam Khalifa ñu ngi lay nuyu képp ku fi teew ci kilifa ci njabootu maam Abdoulaye Niass ñu ngi lay nuyu. Euh, di nuyu it ñi nga xam ne dañ leen fi fekk dañu bokk suñu njaboot ci wàllu politik moo xam ñi nga xam ne dañoo yor ndomb tànk ci parti bi te sëñ Jaañ mi teewal leen fi ndax sëñ Boosé dafa sori moo xam ñi nga xam ne yoruñu ndomb tànk waaye taxawee ci liggéey bi taxaw boo xam ne àdduna yëpp gis nañ ko te moom ñu koy lim sëñ Cheikh Tidiane Niass mi jàkkaarloog man di am mbégte teew fii nag ndax eh, ay fani fan ci gannaaw bi may jotee carton d'invitation bi ci laa woote ne dinaa ñëw bu soobee yàlla bu ma amoon bu ma yónnee woon sax carton d'invitation dama fekk ma fi ma ànd ak wér ak tal dinaa ñëw rawatina nag bu ñu amee yéeg-yéeg boobu ba xalaat ma ba yónni ma carton d'invitation loolu tax ñëw bi mënutoon ñàkk ndax démb ci guddi lañu teer si jóge Casamance ak si Dakar waaye bi ma jokkoo ak sëñ ñu waxtaan ci la dëppoo ni nañu bàyyi ba mu xaw a gën a dal ñu doog a ñëw ngoon si ñëw ziyaara ndax ñëwoon nañu ànd ak coono te it li ëpp ci samay àndandoo yegg seeguñu woon ñoom ñu nga Casamance daanaka fi mu ne nii tey lañu xëyee Casamance ñëw xaat ñu daje fii kaw la mm-hmm. muy ñii ngeen gis sama sécurité bi yëpp ñu ne kon demee na noonu nañu bàyyi ba ngoon si ñu doxantu ndànk ñëw ziar kon ñu ngi am dëkk bi ziar ñaan yàlla lépp lu ay mbébét lépp lu waay ñaan lépp luñ doon jublu ci ziara bi yal na ko yàlla nangu ci barkeb borom bi yàlla nañu yàlla may lu ëppal sax suñuy jot ci ziar sama diggante kër gi nag mu ngi commencé yàgg ndax defe naa musuma dugg Kaolack te teguma tànk fii ñëw ziar te musuma fee ñëwee ñu won ma leneen kanam bu leer yaatal ubbeeku waaye mosuma fee ñëw te joxuñu ma cëru doom ci kër gi loolu nag moo tax ñu am sañ-sañu ñëw saa suñ ko bëggee ñu ciy gërëm kilifa yëpp nag ndax bu doon dañoo ñëw fekk fi safaan bi ah amaana dina ñëw de dinañ ñëwaat waaye lu ñuy seet seetal ko lii sëñ Cheikh Thioro Mbacké wax léegi mooy li am nun dañoo nekk leneen politique doog a ndax ñun ñëpp dañoo am gëm-gëm ay jullit bi politique sax daanaka lu ñu dab la waaye dañu dañoo juddu nekk jullit te gëm naa ni moom la ñuy yóbbaale it soobee yàlla moo tax lépp lu ñuy def rek dañ ciy seet lan moo ci orma ak lan moo ci lu dëppoo lu xel waaye lu charte ci mun a nangu ci diine moo tax bi ñu dooree ba léegi li mu wax da koo fàttali rek dañoo teel a wax ni ñun politique wuñu diine ji ku xamul diine rek moo koy fonto ku xamul diine mooy jàpp ni lu ñu mën a fooyal di ko jëfandikoo ci loo xam ne àndul ak gëm-gëm ngir rek ay poñetu àjjuna yooyu wër waaye dara jaru ko moo tax biñ ci duggee lañu ne ñun politique wuñu diine gi suñu nee politique wuñu diine gi nag mooy suñuy kilifa diine ñun ñoo leen war a njëkk jàppale ba duñ leen jamee ñoo leen war a njëkk jàppale ba leen jamee lenn li mooy moyetu di leen essayer defloo wala di leen essayer waxloo waaye di leen essayer jëfandikoo ci loo xam ne mën na tax lenn ci nit ñi bët bu ñu leen xoole woon wàññeeku loolu ñun ñoo war a njëkk a moo tax suñu ñëwee ci këru diine yàlla dafa def réew mi dafay doxee ñaari tànk tànk ñi nga xam ne ni tubaab di wax wàllu temporel wala ñu mën koo wax wàllu zahir ñi nga xam ne ci loolu la ñuy yëngu mooy ñëpp ñi nga xam ne ñi nga ci mbirum état wala politique wala yu mel noonu ci kilifteef laa wax de réew mi dafa yëngoo ñaari tànk beneen tànk bi nag mooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine gi te yàlla teg leen fi ñaar yooyu faw rek ñuy jokkoo di jëflante di demlante di waxtaan waaye ci dëgg rek ci dëgg ñaar yooyu foog ñuy xamante looloo tax ku yëngatu ci li ñuy lëng yëngatu ba yàlla andi la fii nga ne bu dee démb ba ngay door kenn xamu la nga doon sol sa dàll dem seeti kilifa diine yi waxtaan ak ñoom ngir ñu xam la nga xam leen rawatina tey nag boo demee ba bu ñuy lim ci fa ngay yëngatu mu ñu lim ñaar te boolewuñ la ci loolu yàllaa ko def kon dafay jaadu ñu gën a dëgëralaat suñu diggante ak beneen tànk bi nga xam ne bu manqué réew mu amaana du dem looloo tax ñuy ñëw seet si kilifa diine yi ñaareel bi mooy ñëw dénk leen suñu bopp sàkk ñaan ndax am nañu sañ-sañ boobu nag waaye du lenn loo xam ne dañoo ñëw pour wax war génne mandarga naan kilifa diine gi ñun la àndal walla ñëw ut si ab kaddu buy jib bu ñu mën a ne a ah, kilifa gii leen ci li mu wax li ñu déggee mooy sonko la wala diw la du suñu du suñu cër ndax seen njaboot gi nun am na lu ñu ci am yaa moom lépp. am na luñ ci am. moom lépp lépp yaa ko am naa njort nag ni kenn ëppale wuñ ci. yaa waaye am na luñ ci am. waaye am na lu ci keneen am. déedéet am ci leneen. loolu ci wàllu politique la. loolu loolu ci wàllu politique la. waaye nag boo dajalee li kaamil yépp ci loolu yéen ko am yéen ku ci bokk ci kii ak ci kële yëpp. yéen a ñooñu muy seen njaboot te waruñoo fexe ba njaboot googu am lu ñagas seen diggante loo xam ne day jóge ci manipulation politique mhm. moo tax tànk yi ñu fi andi tànk politique léeg sax dañuy hésité lu bëri balaa ñuy ñëw ndax xam ngeen li ngeen gis ci buntu kër sàkkuwuma ko yónneewuma ko waaye yàllaa ko tuddee noonu ay armeel sax su ma fa duggoon te fekkee fu ñuy robee balaa may génn lii am amuma ci dara yuy yuy sàkku nag seen compréhension ndax ku ñu comprendre rek di nga ne dafa ñëw kër gi di fi politique fekk loolu sàkkuwuñu ko suñu sañoon dañuy dox ci loo xam ne ci sirru lay doon ñoom dugg def li ñuy def dem suñu kon këru diine tam këru ñëpp la loolu yàllaa ko def ndax kilifa diine ñëpp am cër ci moom ñi mu bokkal diine bokkal ak ak ñoom deret mën naa ne ñoom am nañu ñent wala ñeenti cër ci ñoom waaye keneen ku ne am nga ba ci ñu bokkalul diine sax am nañ cër ci nitu diine mooy cëru réew mi ñu bokk te ñoom ñu fiy kilifa moo tax ñuy dalal xelu ñi fi wax ñëpp tey jii de gannaaw yàlla gannaaw yàlla gisuma lu ñu mënoon tere ñëw fii ci kër gi di suñu kër te kenn ëppalewuñu fi ñëw ziyaara ci jàmm ak dal ak teggin delluwaat ci jàmm ak dal ak teggin gisuñu suñu bëggoon a dem julli ji ci jàkka ja ci jumaa ja gannaaw yàlla gis ñu lu ñu ko mënoon a tere. ndax nag ñu tere ma kër gi. moo gën a yomb ñu tere ma jumaa ji. ndax wa annal masaajida lillaahi xaasatan voilà. falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan. jumaa ji moom donte maa ko génne ci sama poos tabax ko waaye bis bu taxawee. ëppalewu ma ci beneen jullit bu ñëw ci teggin ak dal jul pour julli rek dem yoonam kon loolu. ñoo wax ko kilifa gi ne ñëw gi mënutoon ñàkk ndax bés bi jar na ko kër gi jar na ko kilifa yi ngeen doom jar nañ ko waaye nag rawatina bu ñu yàlla booleeg ci njaboot gi ay nit ñoo xam ne gëm naa ni fu ma daanoo ñu daanu seen Cheikh bi jiite ñu koy seere ci kanamu ay mbokkam gor la garmi la ku neex àndal te loolu li ñuy yëngatu lu jafe la léeg gor la garmi la ku neex àndal mm-hmm. te lu mu gis luy defar ma lu mu gis luy yàq mu mu at mm-hmm. te ñi mel ni moom bëri nañu magam yaa ngi ñi toog mm-hmm. ak ñi leen ñëpp nag kon Ousmane ñi kon kóllëre gi ma gi ma gi am ak lew la gis ma gannaaw yàlla lu ko mën a dog te yàlla du dog lu baax kon du dog bu soobee yàlla. kóllëre googu moo tax ñu ñëw tey. macha allah di jéggalu ci guddal kàddu gi ndax xam nañ ni bés bi xat na. ndax xadara bi léegi mu door wala door na. moo tax ñu ne rek nañ ko tënk foofu. di dellu gërëm ñëpp. di sant ñëpp ñaan yàlla mu may ñu. ñu teewaat ñu teewaat ay ati ati. bés bu ni mel yàlla may ñu luñ fi ñaan rek mu doon lu nangu yéen yi di suñuy kilifa yàlla ni fi yàlla bàyyi ànd ak lépp yaram di ziar nag balaa ma koy fàtte seen Cheikh Omar Niass mais nga xam ne it defe naa àdduna yëpp xam nañ sama diggante te muy doom ci kër gi ñu koy gërëm bu baax ci teewaayam asalaamaaleykum wa rahmatulah